waa jàmbaar nag ñoom li ñu nuyu di leen jaajëfal di leen wax ne nag lii ñu taxawal làmb ju neexal ndax ñoom ñaar ay naataangoo leen ci làmb ndax ku ci nekk yaa ngi ci quatre combats quatre tey nag ñu boole leen ñu war def ku ci nekk si cinquième komba xaw ma nag mooy am cinq victoires ki am quatre défaites yow la. ku ci nekk ngay xëccoo mbokk yi waaye defe naa ne li ci kanam raw li bët ma bàyyi leen ñu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi euh, Mambala nuyu naa la jël bi. waaw ñu ngi lay siyaar bu baax. Mhm. di ñu si plateau bi ñëpp. waaw di baalo àq ñëpp tey baal ñëpp di ñaan yàlla boole ñu baal. koor gi ñuy dugg si bisimilah rahmaani rahiim génn si alhamdulilah rabbil alamin ñaan yàlla daal yàlla mi door tool mu mañ ñu ndam bu seddu guy. Mm-hmm. si kaw Ouzin bu Kër Meefaal incha allah. Ibo Ibo bu Kër Meefaal. lu ko di nuyu waa Pikine bu baax di nuy waa Thiaré Géej. Mm-hmm. di nuyu tund waalo gi yëpp ñu ngi leen di sant bu baax di gërëm. Mm-hmm. waa di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Ibo nuyu naa kii mu ngi tiit de man kañ laa tudd Ouzin. <laughs> non dafa ja xaw xaw jaawale tur yi rek. waaw ah, auzu billaahi bismillaahi inna wali yàlla. di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëfati sëriñ Touba jërëjëfati Serigne Touba. jaaraama maam Seydou Ibrahima Fall jaraw lakati Seex Babacar Mbacke si diixul mu këbaro gàcce ngaalaama Seex Ahmadu Mbacke mu këbaro sama yaakaar tey ak ëllëg gannaaw leen nuyoo. di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp ku luxum képp ku ne ci saal bi di bëggee sama gaay ma àndal. Mm-hmm. ku ci mel ni Saamaan Ousou Bane sunu chauffeur Karba. Mm-hmm. di nuyu waa Kër Mbaye Fall ku waaw. ma yow gum foofu. yoon bi yoon bi yoonu fan la. gisoo yoon bi gaay ma ko créé. yoonu fan la ñoo yor bi. ñoojoor fii boo jaa ñoo nga. waaw dama xam nga damaa tàmm ñëw esaat daan. Mm-hmm. jaar Kër Mbaye Fall xëy suba continuer dem yor dama ko tàmm te jëmm ji duma ko yaakal. Ouzin bi mooy sama cinquième combat cinquième victoire. mais moom bi mooy cinquième combat moom tamit. déggoo li xanaa. mais est ce que bi nga koy bi nga koy jël est ce que xam nga ko. xaw ma maa ngi koy ni tey. alal micro bi tuuti maa a gis nga Ibo. bi suñu combat taxawee laa koy soog a xam. moo tax tur bi sax naanu guma ko. déggoo ma naan laa sànq Iba xaw non daa tiit. ah tiit tax muy jaawale Ouzin ak Ibo. suñu benn mbër muy Iba mécanicien. moom dimbali sax moo tax ma xam turam moom parce que su ma su ma naree wax turam. si Iba laa koy jaarale quoi pour man ko jaale pour man a wax moom. yàlla xam nga ne ndaanaan yàlla xam na ne ko ëpp tur mais le sniper de l'arène moom kenn du ko publicité fenn ñu naa la xamuñu ko Mame Balla Junior maa ngi nii moom xam la moom moo coow si la moo tax mu jël ma. am la ma gën a neex mbir mi. Mhm. lu gën a dal sama xel. bu doon nijaay Balla la tudd sax wala grand Balla wala petit Balla. xam nga ma xaw a am lu may xam nga mooy loolu mais Mame Balla la tudd. maam Balla waaw te yow xam nga li ci maam ak sët day xaar bàyyi ma jàll. <laughs> fi nga waxee sooy na de. lu garaaw laa wax nii. <laughs> non moom fi waxee fi mu waxee moom boo lu waxee yow sax man la war a waxal. merci beaucoup. amul lenn loo xamante ne nii diggante maam ak sët la bu lekk micro bi dama la ne. wax nga pare ma déglu. dama ne la waxee nga tontuwaat. boo doon nijaay boo doon nijaay Balla waaw wala petit baala wala grand Balla. waaw mu xaw a xam nga mooy loolu noonu. waaw mais ba nga tuddee maam Balla nga yàq mbir mi. waaw mais yow tuddoo ngay def yëfi maam. <laughs> mais tuddoo sët. wax. waaw doo sët loolu lay wax déggoo li ma la tudduma sët. waaw mais doo sët mais ba nga tuddee wax maam Balla mën na sotoo ku ne. buñ koy moo tax. maam Balla. déggoo li ma di nga tuddee la di nga bëree ba jommi. li ma maa la ko wax Ousseyn yow mënoo maa jëmbal si bëre. maam Balla dinaa la duma dinaa la daan. mënoo maa jëmbal si bëre. maam Balla dinaa la nax dinaa la daan barki. déggoo li ma la déggoo lu ma la Ousseyn. Ibo Ibo Ibo bu Kër Mbaye Fall. waaw yow laa la mënoo maa jommal si bëre. waaw mënoo maa bàyyi wax Ousseyn te yàlla tax. nee naa sa tur jàpp ma ko déggoo lu ma la wax naa la ko léegi. non da ngay da ngay patiné jëlee mbër. xamuloo turam. waaw xamuloo ko. ba pare bëgg moom daan ko. non loolu garaaw. kii lu ko saf wax xam kii mën nga koo xam. Mhm. nit ki mën nga koo xam quoi. Mhm. te doo xam turu surnom. Mm, xam nga ko moom. waaw moom le cinq décembre 97. moom su ma waxee loolu war naa jëli. <laughs> il a bëgg la Ousseyn boo ko jëlee. kon xam naa ko ussin waaw dama bëgg nga déglu ma bu baax non dafa kii li mu wax nii. dama bëgg nga déglu bu baax moom Pikine la dëkk. Ibo waaw Pikine la dëkk. waaw Mbapatu Sokh sama première année bi ma fa ñëwee dama faa finaalu. boobu maa ngi doon lu tuuti. non déet bul tëb waa déglul déglul déglul déglul déglul. may ma ñëw may ma ñëw Ousseyn. Ousseyn may ma ko non may ma ko. le 25 décembre. waaw ah 97 97 waaw loolu foofu rek laa am. Ousseyn loolu moom xam naa loolu dara xam nga loolu benn détail naa ko bu bëggee ma ma wax ban année la. ma wax ko li ci xew yëpp. bu ma dooleel ko ci leneen. non taxawal yamal foofu nga leeral pare soog a jàll. Mbabar Sokh boobu lan la tombé lool. xaw ma lu mu tombé mais sama première année bi ma fa njëkkee ñëw dama fa final da nga koy xam du tam xarit la non du tamxarit bu ñuy takk nag bi si bopp koñ bi après tamxarit la. non nag boobu soq mbopaat boobu lu mujjee tëgg. da nga koy déglu après tamxarit la. yow loo bindoo loo bindoo dem naa dem naa tabaski. loo bindoon loo bindoon lese. man dem naa tabaski ñoo yor. waaw kon tamxarit la yaa ngi dégg. Mhm. ñoo yor laa tamxaritee. Mhm. yaa ngi dégg tombé sama sëriñ sëñ Babacar Mbacke di def ay anniversaire am fële mu duree sax asalem. Mhm. année boobu daw ma si daw ma si cant gi. ci mbopaat bi waaw ci mbopaat bi laa continuer direct. poussin laa fa dara drapeau bu si gën a tuuti Mhm. maa ci gënoon néew doole année boobu maa ci final sama première année nag ñu daan ma final. yow boobu fu dama ñëw bindu. Mhm. dama ñëw di bindu lese fekk ñu ne ma lese yi fees na poussière fees na ñu ne ma yow lu instant yii luur kese fi des. Mhm. jat li moo ma bind. Ousseyn dama lay wax tey lu la maanaam lu ub say nopp man dugg naa ci tournoi dugg naa ci làmb. ñu bind ma lese ma bëre deux combats ñu génne ma ci lese bi yóbbu ma luur. nga bëre deux combats ci lese bi. barki Serigne Saliou Mbacké. mais loolu si la. tournoi moom sans départ rek. dama bu bëre moo la tax a ma ñëw ñu bind ma lese ma doon lu tuuti ñu bind ma lese ma bëre ñaari combat ñu bind ma lu ah, bëre mu ah, la taxee jël sa kër ñu andi la ba nga ñëw di bëre si yow en tant que mbër ñu ñëw naan la ay fii lañ la dugal dugal la fii génn la fi génn jëlaat sa sër ñibbi ne yaay Balla benn mag de nee na ma fecc moom bu la taxee jéggi dex boo yëgee bul xaar ko la ah, tàcc ba tegalaat la ci ba tegalaat la mhm. bu bëggee bu maanaam bu bëggee doon sekk bu bu yàqamtee bu bëggee doon sekk ba yàqamte ba yey ñebbe bët yooyu fulu la xat <laughs> lu garaaw laa lay wax eh, laaj ko kan mooy cuuc ko moom xanaa yow ah moom kay yaag moom yéen a fi nekk moom léegi waxu fi ne moom sët la nijaay nijaay <laughs> Balla bañ na jël cuuj bi. nijaay Balla am nga làmb. mais mais li ma la bëgg a laaj est ce que xam nga kii loolu laa la bëgg a laaj. non wallaahi azim xaw ma ko. dañ ma ne maam Balla bi daanoon Modou Feugeula te sama combat maag Modou Feugeula dañ ko dox ba sonn affaire yooyu loolu tax ma jël ko. mais moom bokkul woon ci liste bi moo fa gën a. le 25 décembre. bii paase mooy combat bi amoon coow leeg yooyu wala du boobu. la la baax na ñoom. Ouzin ak xoyantaan. Ouzin le 19 juin. le 25 décembre. micro bi la. kon donc juin. <laughs> te boobu dafa am lu mu bàyyil xel. le 19 juin sama mbir nee naa ko sinaay peur waxal. taxawal taxawal. nee naa ko sinaay waxal boo ñibbi kër Mbaye Fall nga wàcc Fass Mbao nga dem ñu tegal la lan may rôle sinaay peur. balaa ñu koy xam rek mu jëf ba pare. léegi yow nga ne. man saakuma pour xam loolu dama la ne. Mm-hmm. Ouzin maam Balla am na làmb. bu mag. xam naa ne nag moom xamul loolu. Mm-hmm. maam Balla. waaw ah, xaw ma nijaay Balla xaw ma bëti Balla. wallaahi am nga làmb. merci te ci kàttanu yàlla bu bis baa fu ma la jàpp fu dul karaw dama lay daan. si kàttanu am na nooy woo wooloo sax bu ma la jàppee mooy loolu noonu. Ouzin Ouzin. Ouzin boo xooloo da nga koy damm. non déglu ma tontu ma lay ah, wax. <laughs> non xam nga da wax ma déglu la damaa bëgg ñu déggante quoi ndax mu neex. su may bëree sama daalu góos bii sax du ko xeeb man man Ba man sama daalu càmmoñ bii su ma doon bëree moom du ma ko xeeb ak suma nag doomu aadama. ak noo mënti toll noo mënti mel dayo bu nu mën a nekk ci yow benn gëngëm laa am te du mas a dañ. Mm-hmm. muy adversaire bu nu ma jox bu làmb ji yàggee moom la te fu ma ko jàpp jëlee am. ci kàttanu yàlla. bu fekkee incha allahu rabbi le ci kàttanu yàlla dama daan jëlu bu gaaw man maa a bind mën ngeen a seede bu dee day ñëw bëre man ak moom duñ bëre 30 secondes. su fekkee day ñëw. waaw aduna maa ci dàq bëre. déet barki Serigne Saliou Mbacke loolu. aduna. Mm-hmm. man maa ci dàq bëre képp kuy tax ngepp ma la dàq bëre dama ko doon wax mbapat. kon mm-hmm. dama ko doon wax mbapat mbapat jeex na pour l'instant. Mhm. léegi ñu ngi ci arène. waaw ah. làmb ji maa ci dàq bëre. dina leer. loolu de Ouzin man doomu man doomu ñoojoor laa. Mhm. te waa ñoojoor daa am lu ñu yaakaar ci man. Mhm. bu loolu weesoo Ouzin man barki Serigne Saliou damay doon roi des arènes. te jëmm ji te jëmm waaw fii laa ko waxee wasaare wasaare làmb te damaa ah. ànd koo xam te ne wasaare la tudd mu ngi ne la toog borom sikkim bële. Ah. koo koy wasaare bu kër Mbay Fall. kon de kii fi la bokk. du ma yàqal sama roi des arènes sama yoon kii du ma yow da bañoo mu doon ko. mais non non bañoo mu doon ko mais dañoo ma daan ko xam roi des jël ko ñàkk am defet ak amul defet du tax nga ñaak koo bañ a jël. man ak Mame Balla ku daan ko bëre benn mbër ko fi jëloon amoon defet mais ñi ko jël ñëpp daanaka dañoo am defet ba pare jël ko am déet. Mm-hmm. waaw yaa may dégg la ma mag Mame Balla ku daan mm-hmm. ku gën a bëgg làmb. ku gën a yaatu làmb ci maanaam ku gën a yaatu ginnaaw ci làmb. ko ëpp fit yàlla may ndam. amiin incha allah. ku ñeme gën a ñeme jox làmb gëdd mais fi mu toll nii fi mu toll nii yaa ngi ñaata mu toll nii koor gi moom deux séances benn séance dañuy physique rek ba koor gi jeex quoi. fi mu toll suba gi du ngeen matinaalu ci koor gi. am na loo xamante ne baaxul si santé. Ah, nit da ngay wax lu nekk quoi. man man man benn séance lay entraîné bu ma ndogoo pare. boo ndogoo pare te ci kàttanu yàlla maam Balla mi dinaa ko duma dinaa ko daan bu taxawee. <laughs> mais la moo tax nga wax bu taxee dina <laughs> wala Ousseyn fa laa wóor a ñëw. yow arbitre sifflé na man yow kase ne si géew. Ousseyn lu garaaw laa lay wax ni. Ousseyn musuma am adversaire mu dox sama kaw. Ousseyn fee lay toog di filmer naan la ñu waxoon si plateau ba. kon xam ne kon yoonu nekk si biir géew bi man ak yow ñoo fii ne. na ma laaj na ma na ma laajaat waa bu baax. Ibo bàyyi leen ku jóg rek na ma laaj waa Pikine lu garaaw la non Modou Feugeul ay bëgg ku ma laaj waa Pikine fekk ay ñaari combat yu bëri benn combat nañ ma laaj waa Pikine waaw mooy loolu moo ma njëkk a indi fi nekkoon dina seedal li may wax bu baax mhm. wallaahi azim sama bët teguma ko ci maam Balla mi maa ngi jum sax naan maam Balla nijaay Balla waaw nijaay maam Balla jarbaat dinaa la nax jarbaat dinaa la daan jarbaat waaw kontaan nga woon nijaay Balla xamante ne mag du dàq de ko Mm-hmm. ah baal ma kolle di nga xam ba xam di ma mën a wala maa lay nax. waaw moom de yàlla ñu yàlla yóbbu wala 19. incha allahu rabbi ma daan la jëlu may ma ndam si sedd guy may ko képp koo xamante ne xam nga. yaa ngi teg sa tànk ci kaw suuf waaye lu ma la ci mën mooy Ouzin le 19 sama le 19 la le 19 juin laa bëree woon ak Faga 2 arène nationale Franc Tyson 2. Mm-hmm. man ak moom ñu bëree cinquième combat bi. Franc Franc Franc Bébé Saloum si laa daane woon l'enfant noir. ma nga ma daan ko mu delluwaat. yow a bëriwaat grand combat bi ngeen war a bëriwaat ci biir. waaw man nax ko daan mais est-ce que da ngeen machine yi yéen ñaar. waa ñoo yor aussi. yàlla tere. Ah, xam ne yéen yi bokk ngeen. waxuma la waa Kër Mbaye Fall. non xare Badar la. Ouzin. xalaat Ouzin waa waa Kër Mbaye Fall. man su ma dem lamb. damay mel ni maanaam ku jëm xare Badar rek su ma fa desee rek sama bakkan na rot su ma ñibbisee nag ndam laa ñibbisi waale man noonu laa jàppee làmb. xëy na nag moom daa xamul kii Bamba la. bu ñu bëree làmb la bu ñu bëree la 19. damaa def benn sacrifice bëri boo xamante ne làmb moo tax ma arrêté lépp. ma coupé lu bari pour làmb. non kii du ma ko dama koy déglu muy wax naan ay làmb yi wala naa wala naa. làmb ñëpp fii 19 juin. Mm, mm, waaw 21 lay comprendre. ci kàttanu yàlla yabu waa ñoo yor. yow waaw bu ñu bëree ma ak moom la 19 juin. 21 mhm. heures lay comprendre moom. lay comprendre waaw. ban sacrifice nga def ndax làmb. làmb déggoo lu ma la dama bàyyi lu bëri. Mhm. ànd naa ku ne. def naa defandoo naa ni lu ne. Mhm. mais bi ma duggee si milieu làmb nekk xale. ah laa xam ne mambaal ne ma làmb soo ko bëggee. tegal ma ay sart yi da koy bàyyi bu dee bëgg ngaa doon mbër. bi ma ci tegee ba léegi ma nekk ci. aw ci lu ma naqari te tànku kanam laa ci am. yu bëri dama koo baax ñu ma doon àndal ñii jaar nañ ni ku si nekk sa natoi ah. te pare groupe bi bari woon na ay champion ay mbër maa ci gën a ndaw yàlla dogal ñu tànn ma ci tey ñëpp topp sama ginnaaw am na ñoo xamante ne bëri naa ñoom ba pat heure yi su may bëre dañuy mobiliser wu ñëw. Mambala tapet nga. doo dégg yow tapet nga kii lu mu bàyyi lu nekk bàyyi naa ko raw. man nangul naa la mais déggul ma la. c'est que boo bëggee waxtaan bi ne il faut ñu déggante. parce que boo waxee ma wax da may déglu di boobu léegi Ouzin heure bi xam nga dañ ne daa bàyyi lu bëri man heure bii Europe la ma waroon fekk ñun lu ñu xam mooy mbaal am xaalis. waaw Espagne la la waroon fekk. yaa ngi dégg dem Maroc dem Espagne. Espagne la ko waroon fekk loolu la nga ku la wax loolu. yow ku la wax loolu nax na la ku la wax loolu nax na la. aragaay na yaa ngi dégg bu baax a baax Ouzin. waaw barki Serigne Saliou. samay morom ñu ma doon àndal yëpp ñu ngi Espagne am na si koo xam ne le 19 bi passé la ñibbi si ñoo doon ànd guddeeg bëccëg kon laa ma tax ma bàyyi lépp waa Kër Baye Fall am lu man waa Ñoojoor am lu ñu yaakaar ci man te ma leen te eh, jëmm ji nii nii nii fii eh, eh, jëmm ji nii nii du sàllal sama yoon. fii kenn yabu fi say supporter. lu garaaw laa lay wax. kenn yabu fi say supporter say am di jàmm say xarit am. kenn yabu leen. ay doomu nday xam nga. ay doomu nijaay ay papa. loolu ñëpp ko am ñëpp la rek. gis la rek ñëpp ko am. ay supporter nga wax ay yabu yow maa samay supporter. fii kenn amul benn mbër bu yëpp supporter am. dinaa la daan. sniper bi ngay waxal le sniper dangaa ndoxum siti ba dara ngay waxal nga naa man ay dangaa ndoxum siti yooyu amul sens damaa ndoxum siti jërëjëf bu ma la tàncee su ma la jàppee di nga xam ne yow doo dara ni lay demee ci jàmmaarloo li ngay wootee naa la ci fekk si waa jàmbaar jàmbaar lañ ndax eh, waxal ak man jàmbaar lañ moo tax maa yow waxal ak man mam bala mi eh, daa amoon problème ban problème la daa amoon problème déglu ko ban problème daje ku mën a régler problème dinaa ko réglé problème am ba dootul amati problème kii fii lay fii lay mi. dootu ko amati dootu ko amati. mais Ouzin moom kan moo nekk man dama ba mu nox la wax mais ma ne ma maam Balla daa am mu te moo ma ñëw yooyu bàyyi yooyu. c'est que mbir daa am problème mu ma bëggoon a def mu daan Modou Feugeula man man nekk koo xam te ne damay régler ay problème du ko jël réglal ko problème am. ba dootu ko ñàkkati. dootu ko ñàkkati fii lay jaar adversaire. maam Balla ba léegi toogul ne ko dafa am problème. moom moom say nit ñoo ma ne da nga am problème adversaire. ñeneen ñoo Ouzin gis nga man dafa nekk nit koo xamante ne làmb. du jàmba waa jàmbaar waxuñu ko tamit. waa jàmbaar. ah xëy na moom seen digganteel ak ñooñu. man xoola boo ma tegalee ku ma war a bëreel rek. làmb ji jeex jaamu laa ko war a bëreel mais tapet la. eh ba baale seen wax yooyu waxal ak man. waxal ak Mamba voilà ak man yaa may dégg. ma ji ñu ma ko waroon a bëreel ñu ma ko waroon a bëreel ñoo bari. mais ay mm. tapet lañ. Ousseyn ngay toog fii tey. avant ngay commencé plateau bi am na benn mbër boo doon laajte Boy Jules. Mm. ñaata combat la la aada limal yu loolu mën ta si mbër. mais mbëri ñoo tàmm dañuy waxaale yaag diw lañ soxla taxawul la ñu buñ demee toog waaye diw dañoo sama avance mu taw promoteur be promoteur beeg sa ménagère ak ménagère ñoo dox tànk ak tànk dal ak dal ba koñu jeex jàmm muy laaj loo xamante ne wóor na ne duñ ko ko fay. gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo woo ñaari mbër waxtaan ak ñoom di wax ne nag bi le 19 moom defe naa ne dina nekk combat bu neex ndax di boo nee franc ak soq boo ci tegee yeneen booy yi ci war a ñoo xam ne waa jàmbaar dina ñëw ak doole di leen ñaanal nag ne leen euh, yi ci seen kanam yàlla na dàq fuuf ba ñëwaat ak yeneen combat yoo xamante ni dinañ ci mën a gisuñu suñu bopp amateur yi dinañ kontaan ci ñoom boo amoon kàddu yu mujj lan lay nekk. Ouzin pareegu ma bu loolu weesoo man. damay sant sama mbokku séeréer yi. Mm-hmm. waaw di wax mais sim nun jokaa nuun a njal nu waa ref wo séeréer rek mais sim ngono fay sima ngolof ka xatuna a ñoojoor jon waar falya jogaan siwo ro bawut basaar mar faafa ko mar loj mar sulu a ñoojoor daal boo fayaa ko simon leng lim rek a juum mm-hmm. anduna le fop mais wo yaa den no combat jofa le 19 juin i ɓeer me i dina rek lema lema we Espagne te ɓaato mbaaj rek comme mbaa a bisole warna xa cidan ñojoor i ne mbaas teen yiif comme mbaa fene comme ref to comme mbaa ke jooma fop comme mbaa feke moƴo wobu teen i den ndamtaam teen koy a paax paax paax lim ki mol koy nu xa refna na diaspora fane rek me xoyam na comme mbaa fane nu xa refna o séeréer itam me xoyam na comme mbaa fane il faut boy feke ma mbala xawin maa fena felanga o yaale di waaw tamit waa Kër Mbaye Fall ñu waajal làmb ji le 19 juin bu baax a baax a baax a a baax di sant suñu papa papa Doucouré papa Doucouré di woo Bokar Ndiaye di woo Am Faye sama transitaire bi sama grand frère di woo Thier sama transitaire hmm. yaa ngi dégg di woo Babacar APR grand Sidi borom États-Unis Mame Fallou Sarr borom États-Unis waaw di woo sama papa député Théodore Montey kii daam am problème de député Théodore Montey dafa ne sama ginnaaw maa koy woo bu baax a baax a baax a baax di ko wax bi combat bi combat la. yaa ngi dégg di sant waa mbaar mi waa mbaar mi maa ngi leen di sant bu baax di leen woo tamit ci kawaa bi ñu gën see taxaw bu baax baax baax a yaa ngi dégg su du ma lim benn tur nag mais su ma su ma waa mbaar mi rek maanaam jeex na hmm. waaw di woo waa Kër Mbaye Fall ku luxum ne leen am nga dañ waajal làmb ji bu baax a baax a baax Kër Mbaye Fall Tool jaas Kamb Ridis Zac Mbao assurance Jéggi Pont hmm. waa Jaamu Gën Deux yaa ngi dégg waa Daaru Salaam yaa ngi dégg waa Zac Mbao waa Cité Cypress waa Petit daal su ma limee damay amaana sax du ma juum mais dama matal. Hmm. di woo képp koo xam te yaa ngi bëggee Ibo. di siyaar sama coach Bolo. Hmm. Bolo xam nga bu def mu nekk def sport. di siyaar sunu coach grand Ibou sama papa. di siyaar mar am coach yi nekk ci équipe bi yëpp. maa leen di bëggee bu baax a baax a baax di leen ne xam nga ñu waajal lamb ji le 19 juin ñu jàpp Mame Balla duma ko daan ko du yàq yoon bi tapet la. Mame Balla kàddu yu mujj. waaw Ouzin dañuy santaat yàlla rek kon nag bi ñuy pare bi ñuy commencé bisimilah rahmaani rahim te ñu ngi jeexal dañuy sant yàlla bu baax. Hmm. waa di gërëm aara waaw mooy nit la koo xamante ne suñu lépp moom la. daanaka suñuy làmb yi taxaw sax si moom lay jaar. waaw ñu ngi koy gërëm bu baax di sant ñoom Moussa Dara ñoom Mamour Tëgg ñoom ñoom Assane ñoom euh, Faly Gueye ñoom Ahmed Diaw ñoom ñëpp ñu leen di gërëm di gërëm ñoom Eric ñoom Thier mafia curux bi maa ngi gërëm ñëpp maa bopp sa bopp maa ngi siyaar ak waa wifi bi waa mbaar mi di sant waa Thiaré Gueye yëpp jéen woo ñu def mobilisation bu mag waa Feeraay ñëpp maa ngi leen di woo ñoom Ali Menga mafia bi yëpp Assane Pëndal maa woo ñëpp bàyyi ma kenn di woo waa Pikine bu baax a baax a baax si combat bi di sant maire ñaaño bu baax Amadou Jara grand seexu ma penda ñu leen sant ñoom Mbarka ñoom Baye Ndiaga ay alu Tande Diagne Roxoy Diène ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm sama suñu waa koñ ñëpp mafia bi yëpp maa ngi di leen bëggee di gërëm Abdou jaay ak Persan parce que tey bu ma tolloo fii si làmb rek yàlla seen loxo loxo jaarale. parce que entraîneur yoo xamante ne entraînement sax ñoo la fay jiitu toog di xaar des fois day toll entraînement mel man maa fay ñëw ikiri man benn man cundum mi man ñu ñëw toog di ma xaar su ma ñëwee ñu entraîné ma ay yoon yoon ma ñibbi. kon dèjà loolu war a mën a tax su ma doon def benn ma def fukk. fu ma yàlla eggale si làmb rek gannaaw yàlla ñoom am nañ si part de responsabilité maa ngi si sant bu baax di sant école de li Pape Diop yëpp. di ñaanal mbër yëpp écurie yi suñu écurie mbër yi fa am combat yàlla dafa leen ko ndam di ko ñaanal waa Pikine ñëpp ñaan yàlla 19. incha allah am ba mu des yow. ma am ndam mu seddu gi daan Ousseyn Jëli bu gaaw Ibou bu Kër Mbaye yàlla xam na ni doo ma ko te naa fa ngénte xam naa koor gi éviter ma fa. Mambal ma fee ñëw naa la woo incha allah ci kàttanu yàlla. am ndam le 19. yow foofu wér. bu ñu bëree bu ñu bëree ba pare déedéet. bu ñu bëree ba li nga wax. dégguloo ma de waxal ma dem bu ñu bëree le ngay soog non waxal rek foo wér loolu bu la 19 ngay comprendre. man si yàlla laa wér dama lay daan incha allah. yàlla xam na ne maa la gën a wàkkirlu. si yàlla laa ko wér. yàlla seede dama lay daan si kàttanu yàlla. gis ngeen mbokk yi noonu lay demee ci jàmmaarloo tey mu nekkoon ki nga xamante ni mooy Mambala Junior ak ki nga xamante ni mooy Ibou bu Kër faal Fall kontaan nañ ci ñoom gis nañ ñoom ñaar bëggante nañu ku ci nekk yaa ngi waaj ak say mbokk di leen wax naa gën leen a waaj ndax le 19 moom du yomb di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër jaa